Mark. Hey. Mark. Hey. Ra. Ha. Ra. Ha. اعتدال. اعتدال. واحد. اثنين. ما شاء الله دنيا خليل نخلا بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنخل المنساب جهور الحفل على سوخ فزيموا الجنة يا باري فزيموا الجنة يا باري يا ربي والدتي كم صغير بالأجل لياني ومعلمة كان فينا تسمو بعزيم الأفعال تسمو بعزيم الأفعال Yeah. supporter bu football bi waree football am na supporter أم عبد وفي الأخلاق وبيرى حسن الإصرار ومراد تريد الخير لنا وبحسن الأحلاق تباهي وبحسن الأحلاق تباهي نؤمن قد جاءهم جاءوا فبدوا كالنخل المنساب جهور الحفل على سوق فزيموا الجنة يا باري فزيموا الجنة يا باري وسعدني يا ربي والدتي كم صغيرة بالأجل لياني ومعلمة كان فينا تسمو بعزيم الأفعال تسمو بعزيم الأفعال أهلا قد جاءوا للمرسلين الله أكبر قديم الجنة يا بارد قديم الجنة يا بارد أمعن بدواف الأخلاق وبيرى حسن الإصرار ومراد تريد الخير لنا وبحسن الأخلاق تباهي وبحسن الأخلاق تباهي

Sadio Mané dugaloon tey ñëppay ñu xool baaraay takbir takbir allahu akbar i'tidal allahu akbar i'tidal mat yéen ndamal lislaam mat hoy raf xaf raf xaf i'tidal i'tidal ra may ra may ra may ra may ra may ra may ra may ra may mbokk yi lii islam rek la ko mën taslim asalaamaaleykum taslim asalaamaaleykum amaamakum yaa duuf alquran ah hiiru ah hiiru تسليم السلام الله عليكم تسليم السلام الله عليكم أمامكم يا ضيوف القرآن أهلوا أهلا وسهلا يا وسهلا يا والدي أهلوا أهلا وسهلا يا وسهلا يا والدي خلفكم خلفكم أمامكم الله أكبر زين زين يا الله أكبر macha allah. taraajaw. iman bi rafet na. taraajaw. taharraka qulubuna. taraajaw. suñuy xol yëngu na. si. allahu akbar. awaakum. awaakum. macha allah. taraajaw. taraajaw. xale yu ndaw yi. taraajaw. xale yu ndaw yi. السيد ربنا تبارك وتعالى اعتدال الله اكبر الله اكبر زي ما شاء الله ممكن نجي نكمل اعتدال رزقا لا إله إلا الله toolu diina yaatu na bay sawar de moo ñu war ànd leen te bokk xol diina yàlla benn la ahma saaxi moo ne woon yàlla moo ñu boole woon alastu bi rabbikum ñëpp ànd ne ko waaw kàddu yàlla moo ñu saf baatu yàlla moo ñu andu leen te jaamu la ilaha illallah toolu diine yaatu na bay sawaada moo ñu andu leen te bokk xol diine yàlla benn la ah masaaki moo ne woon yàlla moo ñu boole woon bi rabbikum ñëpp ànd yàlla ah, na mustaqim moo ne woon yàlla moo ñu boole woon alastu bi rabbikum ñëpp ànd ne ko waaw ma sha Allah Ahmad Sakhir moo ne woon yàlla moo ñu takbir takbir Allahu akbar asalaamaaleykum mbooloo yi waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu yaay yi fi toog ak suñu papa yi ak suñu mag yi ak suñu rakk yi waaw dina xamal nii tey fii si Kër mbay Fall te xale yi ku leen gis xam ni da a tàggat yar nañ leen si diine ba pare dañuy góorgóorlu dañuy jàng xale yi rus nañ sax taxaw di siggi di xool nit ndax seen yaru booy wax ak ñoom dañuy xam ne carrément ku leen mag moo wax ak ñoom dina wax ni yéen ñi nga xamante ni yéenay nekk suñu parents te andi fi seeni doom bu leen ko rocc mukk da ngeen jàppale ni incha allahu rabbi école franco arabe sa kaw ca kanam ndax résultat bi mu fi andi benn école andi ko fi li muy jàngal xale yi benn école jàngal ko fi te école yi nekk Kër may Fall ñi nga xamante ni ñoo ko gën a moyen seer bariwul fi bariwul fi kon yéen parents yéen a mën a ñëw jàppale xale yi te ku leen gis xam ni ñu ngi leen di jàppale mais yéen seen loxo faaw mu ciy dem ndax daara ji ndax daara. ñu def nañ daara pendant treize ans te ñu ñu nekk fii ñëpp di jànge ak ki jël kàddu sànq di wax mooy oustaz Adama Ndoxo ak oustaz Babacar ak oustaz Boubacar mi ñun ñëpp ñoo nekkandoo woon benn daara amee saxirloo bun tey ñun dañoo jàng ba pare ñëw fii mais dañoo ñëw fii oustaz Ndiaye jéem ñu formé ñu yokk suñu xam-xam kon tey ginnaaw yàlla ñu fu ñu toll moom moo fa yeggal moo tax lu mu bëgg su booba ngoon dañuy taxaw ci moom di leen ñaanal yéen parents yi ngeen ñaanal ko yàlla bàyyi ko fi si suñu kanam bu baax ndax nekk na oustaz boo xamante ni idole man mooy sama idole man waaw moom wax na chaque jour ma wax ko nii ko ñun yow yaay suñu idole kon tey maa bëgg ngeen ñaanal ko mu am fan bu gudd ak gu yaram ba daara ji nekk ay hectares yi hectares ngeen fekkee ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah. salaam ma rahmatullah wa barakaatu. macha allah kon mbokk yi message baa noonu. yàlla borom bi boole ñu taxawu. incha allah pareeguñu ci seeni message fa yattabiuuna ahsana yàlla nee na pour ma xamal leen ñooñee la ñu def am na njëriñ ulaayika alladina hadahumullah wa ulaayika humul albaab kon su ko defee incha allah ñu bokk ànd ñun ñëpp wéyal liggéey bi incha allah ñu déglu ustaas ah. bismillah bu ko defee ñu ñëw ci CP sëy ak jardin bi génn nañ